kon moom gàcce ngalaama. yaa Khadija gàcce ngalaama mais taa dëgg lan moo la gën a marqué ci sa yaay. yow ku la gis xam ni doomu yaay nga. ku la xool xam ni sa xaritu yaay nga mais dañ bëgg rek nga wax ñu lan moo la gën a gën a gën a marqué ci sa yaay yow dëgg Chimère. waa li ma gën a marqué ci Yahaja day difficile sax ma wax ko. mooy xam nga 88 ba léegi ku sa wéjur wu góor génn àddina yàgg na. te danika def na 23 ans te dafa mel ni ba léegi sam papa ngi dund. waaw loolu nag nga xamante ne ne ba sa papa làqoo. boobu boobu xam nga ni 23 ans ku ko dind ci ay atam boobu xëy na sama at la war a toll. boobu ba léegi mu toog jébbal lépp. suñu borom bi toog ne tey la fi seen papa gën a ne tey laa leen di gën a yar te ñu ñuy juróom-ñeent macha allah mu def ci ñun taxaw nekk góor nekk jigéen nekk papa nekk yaay taxawuñu ba tey ku ci nekk war a nekk référence ci li nga doon loolu moom a gën a marqué courage bi mu am ak tawxiid gi nga xam ne moo ne ci moom sànq wax naa leen ne ne dara ñoru ko lu dul xuraan kon man sama yaay sama référence la sama sëriñ la taalibeem la kon man loolu moo ma ñor ci Yahaja souvenir bi ma gën a neex ci Yahaja mhm. mooy bi ñu àndee di tawaaf Kaaba loolu pour man teraanga mënu koo gën a rëy dama ko doon rêvé mm-hmm. mu ja ànd jàpp ma ndeysaan ci loxoom yu sell yi. Mm. ah muy jàng kaamil ñu jàkkaloo kaaba gi ñu ànd di tawaaf moom sama sëriñ la. ba tax na mbokk yi yéen ñi doon seetaan tey ci jour bi nga xam ne mooy fête de mères muy feetu yaay yi ba tax yéen ñi jàkkaarloog ñun ku fi sa yaay toog nuyu nañ la di ko sargal bu baax a baax ñi seen yaay dëddu ñuy ñaanal seen yaay yi bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom fekk leen fa ci bës bi fañ nekk gën leen fi ñu jóge yàlla gën a sàmm seen njaboot yi ñi fi nekk des fi ci ay njaboot yàlla teg ci ñoom loxo moom lañ indiloon dëgën dëgën pare pour jébbal ko yaayam dañ koy indi fii taa dëgën Podor nag moo participé lii ci bës bi macha allah Yaja réception nen laa la Podor ci bés spécial fête des mères ci cadeau yi la bokk. yow tey jii lan ngay wax ci Podor ak estomac yu métti yeeg yooyu seen. xool yeeg yu demee noonu. waaw man dama ko doon utiliser. parce que xam nga tomate bi qualité la. li nga ci waxeek dina xonq te sell na. Mhm. waaw moom daal. loo ci bëgg daal fekk ko ci. te yàqatul benn stomac. déedéet déedéet dafa sell. heure bu la neex lekk Podor. waaw dafa sell. <laughs> ba tax na Podor neex na sell na Podor amut limite ci yéen heure bu leen neex consommer ko ah sans danger léegi nag ñu jàll ci ka ca topp bañ seet see dëgën chimère ak yaayam pati seen ñëw na joxe li nga xam ne mooy chocopin jóge ci chocopin joxe li nga xam ne mooy. mooy ajaa sachet yi nga xamante ne boo ko bàyyee ci waañ lu la neex def ci te loo ci def mu neex Adja moom dootuñ ko publicité ñëpp xam nañ ko ak kàngu bi nga xamante ne nii dañ naan euh, euh, euh, pour ndekki xale yi mais léegi sax talboo yi dañ ciy ndekki muy borom kër gi ci boppam léegi da ciy ndekki ak sachet yi nga xamante ne nii. mooy sachet mami yi sachet yi nga xamante ne nii kenn jaaxleetul di jënd lenn ci nen wala di def lenn te boole ko ci sañoo ko beurre bii nag waxatuñ ko ci kër kii mooy togg yàpp yeeg laax yi. kon yaakaar naa ajaa jàpp na ci bés bi ñu jóge ci loolu mu dem ci dolli fi mu nekk benn cin sañatu la bañ a neex ndax waa Patisen Patisen ba mu génnee dolli ba tey ceeb yëpp ay doore rafet mel na ko bëggee. ba tax na lii la Patisen participer tey ci bés bi ak ay boolam yu baax ci biir ak ay achetam yu mën a def laax ñëw jébal ko ki nga xam ne mooy dëggeen chimère dëggeen na bëggu ci dara lépp yaayam taa dëggeen waa Patisen a la seet seen nii nangul naa la ko <laughs> macha allah macha allah looy wax waa Patisen tey ah ñoom li dañuy def dafa baax. seen i bagage a baax. Mm. encore une fois ñu ngi leen di remercier ci fête des mères bi ci geste bi am na solo lool lool bañ toppalee paquet boobu paquet bi taxawaat dafa ñëw ne man mii kenn gënu maa nekk jeeg ñu ne ko allu ah, tax mu ne man maay NMA NMA nag benn jeeg layetul fariñ te kenn amatul xew di jaaxle ndax NMA. tojal sa nen rek gis ni mu nooyee taa boo xoolee ni mu nooyee. Mm. lii loo ko booleel mu dem. ñu ne déete waaye mu ne man dama lëkkaloog. lii xam ngeen ko pasta mi mu boole ñaari façon pasta mi bi bu gudd bi ak bu gàtt bi bii loo ci bëgg a def rek mën nga ko ci def sa alaaji aas kontaan xale yi ci kër gi kontaan kër gi daal toj ndax pasta mi ndax pasta mi fi mu ne nii lekk jaboot la sakkan na neex na yomb naa utiliser. te sell na te sell na waa jeex na. te boo ko defee ci ndox mu tàng mi soxlawul ngay sori ndax. day ñor te sell na te na. kon taa dégg nangul waa enema waay. ñi daal xarati nañ fii. kon beneen paquet. ci paquet yi ci paquet yeeti. léegi mu ne kii mooy. waa TDK gaamu nan strong gaam bi mooy xam ngeen strong li li xale yu góor yi naan te ay singa kii yaram moo ko tax a jóg kii moom gis ngeen jamono jii fii ñu toll ci ete bi ne xale yu jigéen ñi melee ni tàngal lii moo koy def lii moo koy def am na lotion am na am na am na am na saaboom am na lait de bi am na lépp gam bi lépp a ngi ci biir te lii ay crème yu baax a ngi ci boo ko utiliser doo oqatu day dina xasan di dindi yenn façon yu bon yi nekk ci yaram nee naa la xale yu jigéen ñi fi seen yaram yu baax yépp man de lii lay diwoo te yaakaar naa tax dégg mi ngi ci lii. day dindi gàkk gàkk. day ak karaas. waaw lépp. Ah. waaw kon xam naa lii moom dañ la koy bàyyi taa dégg. Ah. ba tey. kër yaayu dégg chimère nee naa la yaay dafa nekk loo xamante ne loo ko jox rek doyul jamaa sax doyul ba tax na loo gis rek dafa am xalif général Samsung nag ñëw na. kenn dootul fóotati kum yabu xoolal posal say ba mu nekk ay 1 mètre dootoo fete teg naa machine boo xamante ne du yàq seen ay yére te dina ko defar ba mu gën a beesaat génne couleur yére bi fóotal leen ko ba mu set muy Samsung bi lave-linge à tambour kon Samsung bii lii la def tey participation ci kër Degen Chimère doyut mu ñëw ne a ah, njaboot yi dañuy dem génn ba ay trois heures du matin ñu xiif wala nga tëdd sa kër sax yàgg sa talbo ba 3 heures du matin nga xiif da ngay jug dugg ci waañ bi ndànk génn ci sa frigo daal di ko ci def xool ba foo bëgg mu yem fa mu yem fa kon yaakaar naa. Samsung tas na bés bi tey parce que ñaar yi ku ko am ci sa kër namatoo dara muy micro-onde bu baax bii heure boo jugee tàngal xam nga dafa bëri yoo xam ne dalay wor mais kii du la wor ñoom ñaar ñii boo leen boolee ci kër rek sag la dalay sagal dina la noppal ci say we noppal la ci ay taalum gaz ak yenn façon boyal yi. léegi nag ñi ngi jaajëfal ñooñu nga xam ne ñooñu gunge woon tey ci fête des mères ku mel ni NMA duñ ko bàyyi kenn layatul ak waa pastami gis nga ñaari qualité yëpp indi nañ ko te am na yeneen yu baax samsut nag ñu ngi koy gën njukkal moom tamit duñ ko bàyyi parce que nee naa ne nii mooy jamaa ci kër ku ciy rêvé jamaa mënoo ko am dugal bitigu samsun boo yeggee ñu jox la loo xam ne kër goo ko teg jéeg ju dugg naw loola rawatina nag nga def ko surprise doo xaar sax sa tal boo di ko jënd yow nga def ko surprise xale bu góor bi dana la fonk ay mbokkam naw loola ak yi nga xamante ne ñoom Podor ay ñoom pati seen dolli ñoo ñëpp tey ñëwoon nañ fi ci bés bi ndax ñoom itamit dañoo bokk ak jigéen ñi nday ak baay ñu def ko surprise indil ko ajaratu dëgën simeer mu defaat ko surprise yóbbul ko yaayam kon dañ koy jox micro bi laaj ko fu ko bés bi toll tey taa dëgën waaw xanaa kontaan kontaan lool lool lool lool lool Yaxa di la jébbal kado yi xam nga nii ne euh, ni ñu ko waxee rek euh, machine à laver bi moom defe naa ni di nga ko itteewoo moo tax ñu ngi profité di la ndokkeel ak di ko recommandé sa morom yëpp macha allah seen njaboot ne leen ko jëndal micro onde nag xam nga soo ko joxee yaa Hadja ñoom dañu am seen heure lekk yoo xam ne lañ ca soxla rek heure yooyu la ñu war a jug de tàngal ko. kon encore une fois ñu ngi remercier bu baax a baax waa Samsung ak teraanga yi nga xamante ne sponsor yi indi nañ ko bés bi rëy na waaye ñoom tamit dañu leen di sargal ndax delloo nañ dikkoon jigéen. ñu ngi kontaan bu baax a baax ndax fête des mères nga jug sponsor yëpp ne jigéen a ma saf ndax xam nañ jigéen mooy pilier société jigéen mooy magasinu yàlla jigéen la yàlla jagleel saar ñu ne jigéen la ñuy sargal kon gàcce ngaalaama Samsung gàcce ngaalaama euh, NMA gàcce ngaalaama Podor gàcce ngaalaama Patisen ñoom ñëpp macha allah kon euh, ak strong yaa gis nga yaaxaja nee na strong <laughs> kon encore une fois kontaan naa trop trop trop xam nga dañ ci xam boo xam ne jëw ak jë